père le patriarche du système. Okay. si Habib Sy même dans sa famille Linguère xale yi mujjee juddu le considère du passé aujourd'hui nga am ñoo xam ne dans la Yewwi yéen a doon ànd ñu sacrifié wu pour yéen di xeex changement ñu ne mën na possible nga dindi ki ko war a mën a doon yóbbu koo xam ne ni su demee abstention la nar a jur wala delloowaat la système dans le système muy Habib Sy mooy bugguloo changement il faut que Pastef génn leeral nit ñi loolu. le choix sur Habib Sy. mooy déedéet le choix sur le changement. ok xam nga ña Sénégal. est évoqué l'antisystème. waaw le Sénégal s'est divisé en deux camps et l'histoire politique du Sénégal a toujours donné que ñaari pôle ñooy xeex mooy pôle buy xeex continuité. Mhm. pole buy xeex changement. force changement yi nag. Yewwi mu amoon un million voix sur les législatives. donc après Benno Bokk Yaakaar Yewwi moo raw donc Yewwi boobu raw tey ñooy favori pour changement mhm. favori pour changement Ousmane Sonko moo doon leader bi ak figure de proue bi mhm. Ousmane Sonko n'est plus là Déthié Fall est là pour Yewwi pourquoi ñu dem tànn Habib Sy qui incarne le système alors que Ousmane ak Déthié ñoo xawanduroo parcours ci constance si ñàkk nekk si si ñàkk jaar ci système bi ñàkk def leneen kii député la kii député la woon mhm. pourquoi mu ñëw ñu beddi ko indi keneen loolu ban formule loolu trahison lay nduróol wala loolu c'est pousser les jeunes après le choix parce que Ousmane mën na bañ a génn ci liste yi Diomaye mën na bañ a génn parce que affaire Pastef ak li ñu leen accusé ñoom Cheikh mën nañu bañ a jàll mais bu dee Habib Sy daa jàll on se retrouve ñu ne ñu waa kon moom yeewi la nekk jox nañ ko koo garantie dix députés mooy sa candidat mais il aurait sécuriser la candidature de Déthié Fall parce que ñoom ñoom ñett dañu demoon ba jàpp ni Déthié Fall parti su wax dëgg rek te yàlla tax ok parce que xalifa Khalifa Sall. Mhm. Barthélémy Dias génn na ne. Mhm. ñoom bu ñu jëlee deuxième bu ñu jëlul deuxième ku munti jóge ci opposition bi opposition bi la ñuy voté. Mhm. xam nga ñoom leeral nañu loolu. donc Bart quel que soit coow li ñoom nee nañu bu xalifa jàlle di ñoom ñoom gëm nañ ñi mën na jàll bu jàllul nee nañ dinañ choisir keneen. mais day doon ci biir Yewwi. waaw pourquoi Ousmane Sonko tamit ak njabootam ak kuréelam ñu génn ne changement la ñuy voté quel que soit Alpha nous votons le mooy bokkuñu ci kan continuité mais choisir Habib Sy c' est choisir la continuité c' choisir le système c' est c' encore lancien les trois anciens gouvernements. Okay. loolu mooy mooy le débat foofu la nekk pour l' instant. ok Abdou Sall ñu jeexale ko parce que je pense que waxtu wi jeex na euh, président de la République dina tenir euh, discours à la nation bu mujj le 31 décembre di dimanche d' abord lan nga ci xaar ndax xaar bu bëri na ci boobu les déclarations. mooy tàggoo ak ñaan ñaanal ñu yàlla amul benn discours bi amul lenn lu muy wax. ok parce que li mu waroon wax discours bi mu ngi mooy mu du bokk. ok après tàggatoo moo ci topp donc tàggatoo le 31 décembre. Mhm. parce que tàggatoo la. c' est fini dem na il appartient maintenant au passé. ok kuy xaar discours président pour di ko décortiquer looy décortiquer. looy xeexal ak looy attaquer. ak koy waxal donc président Macky Sall nee na demul mais la continuité la bëgg pour ses projets c' est Amadou Ba. ñun mhm. on attend ce que Amadou Ba va proposer. Mhm. ndax nga gisee Amadou Ba ci ay doxalinam euh, parce que ñu bëri jàpp nañ ne dafa président daf ko xaw a nëbbu récemment ci investiture ak tout ce qui s' est mooy li Sénégalais yi li nga xam ne moom la Sénégal dul wax ci moom. Hmm. mooy Amadou Ba c'est un Sénégalais major dans ses promotions nekk fi directeur des impôts nekk fi premier ministre nekk ministre de de de l'affaires étrangères am parcours. Hmm. mais côté politique ak côté évaluation élection présidentielle bi mooy première participation. Hmm. mais Amadou Ba buy dem élection il a des appareils. Benno Bokk Yaakaar. ak ancien président. ne moom mooy candidat donc loolu ñaari atu yu mu am. pour l'histoire politique du Sénégal Amadou mooy le candidat boo xam ne ni ancien président bi nee na ko yaay sama candidat. bi ci des mooy appareil benn Bokk Yaakaar bi dirigé douze ans nee nañ ko yaay suñu candidat. waaye nag am na am nañu génn ku mel ni ñoom Mame Mbaye Niang ñoom ànd nañ ci choix beeg ñoom Souleymane Jules Diop qui a parlé Robert Bourgi également qui a fait une que Amadou Ba Robert Bourgi xam nga dama la wax ne xam nga ñoom Robert Bourgi du du du référence parce que déglu sax ay ay ñoom Robert Bourgi ñooñu ñooy jaaykatu ñoom ñooy ñooy pion français yeeg xool ak leneen dama wax ne Macky Sall président Macky ci boppam moo ne Amadou Ba. Hmm. on peut pas être plus loyaliste que mais Amadou Ba est-ce qu'il présidentiable loolu ku ko wax waxoo dëgg. bu dee xam-xam la. Hmm. kenn ëpp ko ko. bu dee expérience la kenn ëpp ko ko bu dee parcours bu dee yar la kenn ëpp ko ko. ku am diine la am kilifa. moo dirigé woon sa impôt bi léegi nag ñaar moo am mooy c'est-à-dire durant règne Macky Sall il fut ministre des finance hmm. il fut ministre euh, des affaires étrangères il est actuellement le chef du gouvernement mhm. il avait piloté le PSE aujourd'hui moom la Macky Sall ne continuité bi critère yan la ñu waxoon pour tànn continuité bi ku mën critère mhm. PSE bi par consensus ñoom ñëpp ñu daje moo tax ma ne la foofu ku bokk ci bilan bi ku bokk ci bilan bi Amadou Ba soxlawul directeur campagne c'est le bilan de Macky Sall moo ko war a fal moo ko war a fal donc parce que bilan Macky Sall assumé par les les les gars mhm. mais léegi nag ñaar moo ci am koo xam ne da ngaa gëm Macky gëmoon lekkoon xaalisam daan dundee ay kiiwam doon dundee ay décret aujourd'hui Amadou Ba moo war a nekk sa candidat ok parce que bilan la ñun askan wi nag mhm. Amadou Ba lenn lañ sekk ak moom mooy bilan léegi nag est-ce que Amadou Ba pare na pour indi les débats qu'il faut qu'il faut oui. est-ce que Amadou Ba pare na pour proposer PSE li ci war a améliorer PAP 2 ak 3 ans mais loolu mu ngi ko war a jàkkaarloog yeneen offre yi mhm. moo tax aujourd'hui le rôle des ministres de Amadou Ba et le rôle des directeurs de Amadou Ba aujourd'hui c'est pas venir lui donner des parrainages de mobilisation c'est de venir dire aux Sénégalais voici ce que nous avions fait sous la conduite du premier ministre ok mais Amadou Ba échec am mooy échec gu Macky Sall parce que Macky moo ko choisir mhm. échec am mooy échec gu Benno Bokk Yaakaar mhm. parce que Benno Bokk Yaakaar moo ko choisir askan wi choisiruñ ko mhm. askan wi nag Benno Bokk Yaakaar mooy présenter seen candidat le président de la république nag dafa ne maa ngi dem liggéey naa kii laa fi teg mais képp ku bëgg président de la république képp ku ko gëm bu fekkente ne da ngaa fokkatal Amadou Ba rek bëggoo président. ok Sonko sera investi euh, ah, mais mais mais mais mais Sonko sera le 30 la il y a pas du débat du saw sa bopp ngay nax. pour investir on investit un électeur. mais ils ont le droit parce que c'est leur cuisine interne. ok ils peuvent investir là-bas proposer un programme mais li ñu gëm mooy ils ont ñoom ba tey ci changement bi lañ bokk ils sont toujours acteurs acteurs majoritaires ci biir pool bi nga xam ne ñoo mën a yóbbu changement bi mais bu ñu continuer di ñu wax Sonko la bu ñu continuer di ñu wax Habib Sy la mooy gëmuñu changement il faut que le 30. la déclaration et la déclaration bi ñuy xaar le 30 de Pastef mm c'est de dire au Sénégalais que nous voterons le changement mm -hmm. nous voterons dans Yewwi képp ku jóge ci beneen bi ñu ne carrément que Yewwi Askan Wi mooy jël pouvoir ok mooy la mu waxoon Amadou Bari loolu la ñuy xaar ok mooy pas de plan B à Habib Sy Habib Sy moom mhm. plan B Habib Sy c'est la continuité du système okay. c'est un peu même réveiller même les anciens systèmes c'est ça mais jàpp nga jàpp nga dinañu ko autorisé euh, boobule boobule boobule mobilisation voilà. nañ sax ci njort si xibaar na que c'est c'est interdit boobule euh, li nga xam ne moo di euh, investiture bu Ousmane Sonko quand même. modifié. Oui. il faut qu'on attende de voir de, de, kan moo ko déposé mm-hmm. parce que Pastef a été déclaré parti mm-hmm. boo xam ne dañu entre dañ ko am luñ ko tuumaal mu mm-hmm. ak yéen chef d'inculpation yi bu dee ci turu Pastef te gëm naa ne yóbbuwuñu turu Pastef léegi leen di investir ok léegi nag ak problème yi am yëpp ci Pastef est-ce que risque la woon waa Pastef ñu ñuy defaat mobilisation waat nit ñi. Mhm. parce que ñoom nee nañu xew-xew bi fi jot am am na ñoo xam ne du ñoom ñi yàq du ñoom est-ce que ñeneen du ñu profité waat greffé fu ci impliqué parce que dama gis. l'enjeu aujourd'hui ce n'est pas montrer la mobilisation. ok ces élections c'est le débat. c' est l' axe mm-hmm. programmatique. Mm-hmm. c' la proposition mais loolu Abdourahmane Diouf wax na loolu ça manque mais apparemment wax mais. musul a ah. présenté dama ne la gis nga fi fii Sonko waxee nañ débat après Mimi Touré lu mu ko tontu finalement ñoo bokk. même yem xam nga boobu débat yoo xam ne non bi defante la. oui en pleine législative la kaay non mais organe presse bi yéen bu ngeen ko choisir mu am. Ah, on verra en tout cas. si xam nga luy problème mooy la euh, élection yi déterminant bi ko war a orga bi tax sénégalais yi ñu bañ leen ci nax. Mhm. c' la presse c' est les yi ñoo mën a jaay élection yi médias yi ñoo mën a defaat élection yi mu nekk système de choix. boo xam ne du am dégâts donc Abdourahmane Diouf loo proposé ak say livre Thierno Alassane Sall c' est un homme valeureux. Mhm. mais xam nga dañoo am pool des oppositions quand je parle de Yewwi entre Déthié ak Ousmane je parle de Yewwi. mais le peuple mooy wax kan mooy le vrai changement ou la continuité. parce que man du ma mais man je parle en tant que les chiffres et les données sur les dernières élections mais Abdourahmane Diouf est là Thierno Alassane Sall est kii euh, euh, l'autre là Idrissa Seck est là. est euh, des jeunes émergents yu bees yu indi ay pour Anta y a keneen mais na ñu indi ñooñu na peuple bi wane programme yi élection ren du gain de mobilisation parce que 4 millions sénégalais voté wuñ législatif. kon 4 millions bu ñu ne leen yéen ñëpp kenn ànduñu si ak kenn mooy majorité silencieuse bi kon donc pari mobilisation bu ko kenn naxee kenn. parce que un million de Sénégalais ñoo voté donc qu'est-ce que va devenir Karim Wade lan la PDS te cinq cent mille voix la ñu ils sont de ces élections tey arbitre la ñu yi dafa am peseur de roi am arbitre Karim est le principal arbitre et le parti démocratique sénégalais qui va hériter les est-ce Karim mooy ñëw dem élection. ou ah, bien Karim nee na ngi waaj pour ñëw ah. xam nga bu dee Karim <laughs> ñëw. waaw ne am 500000 tey opposition Sénégal après Pape Djibril Fall. Mhm. PDS moo ci natt boppam. ok après ku ci topp. ci des ñëpp ay coalition léegi nag sénégalais ñooy xool nan lañ mais pari de mobilisation xam nga lu am solo. Mm. mooy bu doon tey ñii dañu ne dañuy dem Ousmane Sonko day voté changement ki muy àndal lay àndal programme mais xam nga lu enjeu élection 2024 yi. mooy Ousmane Sonko aussi.